Feel your energy. Plug and play. The original German.

waa ñoo ngi si ah, léegi yow ñibbisi nga Sénégal daal. waaw léegi ñibbisi naa nag. ah c'est très bien waaw ñibbisi naa pour pour jàppale ndaw dëkk beeg waa dëkk bi. dañuy baax expérience bi nga am ngeen ñu ko fii nii. oui waaw loolu nag moo gën a tax sax ñu ñibbisi. Ah. expérience bi ñu yore. moom lañ bëggee indi jëmbat ko si dëkk bi quoi. macha allah macha allah oui eh, oui. moom kay moom oto bi kay souvent day ñëw. xam nga man awma temps wu nekk fi naan damay vidéo affaire yi mel noonu dama ñëw jox la ko dem nga géral ma ko ñëw seet si Izo. non Zia soxla woon. ah Zeyna. duggal. mën nga ma ko woon ah. waaw Zeyna Zeyna. waaw madame Guèye. wuyul maa ngi ñëw ok. merci. Eh, ça va. madame Guèye. oui. ki may seet. mi ngi nee toog. kii kan. Racine mi ngi nee. waaw cadeau bi laa romb bu rafet rek ma ne xaaral ma jëndal la ko. cadeau waaw. non montre bi sama gars laa romb ñu koy jaay moo xam ne yow da nga bëgg ay montre ma ne xaaral ma jëndal la ko. dañ ne la damaa soxla cadeau. non dafa rafet rek ma xam ne day naaj si yow kon daf la neex rek nga dem ci marché dem ci nu mu jox ma ko dama ko romb rafet rek ma xaaral ma jëndal la ko yaa xam moom maa dem. man maay garde corps société bi man maay garde corps société bi. mag yi. waaw ah man de dama daan gis bu njëkk ba gàdd corps da daan njool am gabari hein uh-huh. ba pare ba pare nag def jàng loolu ñuy wax armation. loolu armation yëpp a ngi ci man nag. Ah. ana say fital. ana say fital. waaw am naa ñaar mais. ñoo ngi kër ga ma baax. mais. yow wax nga lu bon. tubaab bëggul mais. ah. garde corps.

grandeur. Ah, yow da ngaa bàyyi bi xam nga rek meeru fan yi moo dagg sama tànk foofu quoi. na yooyu nekkul ci rek. naar kii fan nga xam. yaay eh. soo ma daan yónnee ci ñoom mag yi. su ma fa demee mag moom ñooy ceene teg zëm bi yaay daf may toppatoo yaay dese muy nii. sa gémmiñ gi lii mu wax mën nañ ne see tëj usurpation de fonction nga def. DG yow loolu mooy directeur général kii di moom mooy garde corps nga naan ko DG. waaw baax na dem lu woori madame Guèye moom moom lay seet. <laughs> Hmm? xam nga ko. yaay nag ma waxanteeg yow man màggatum koroj laa kenn mënumaa dëggu mboot kenn mënumaa ko foori bu nekkee ne waa joojoo la fi yónni nga wax ma ko mu leer. waa jam waa jooju xamoo ko. ban waay. ni këru madame Guèye. Ah, mais nag yaay boo neexul ba neexul. Hmm. Euh, yaa ngi may ñàkkal fayda nag. waaw. man mag mu toll ni man. Hmm. am sama bëgg-bëgg. Hmm. war koo mun a doxal sama bopp magum jëmm di ma yónni muy ñëw di ko doxal ay bëgg-bëggam déedéet man damaa nopp madame Guèye comme ni mu ko nobee moom. bëgg madame Guèye comme ni mu ko bëggee mu may yónni. duma ci wax man.

damaa bëggoon ñu man ak xam nga ne man aji bëgguma ko te jamono du neex mukk ba ma takk ko comme yow xaritam nga yi ñaar du ngeen nëbbante dara damaa bëgg nga waxtaan ak moom pour mu dem waxale ak sama jabar aji mi ngi tas sama sëy aji yàq na sama àdduna takk suuf bi muy wax du ko mës a def. <laughs> mas aji da nga koy takk waaw aji da nga koo war a takk takk suuf. dama koy takk takk suuf. takk suuf. aji nee na boo ko takkee takk suuf bu leen wax ak sa jabar sa jabar ñibbisiwaat takk takk suuf. aji moo su ko takkee mën a waxal ak <laughs> aji nee na boo ko takkee na wax sa jabar takk ko takk suuf mu dem wax ak sa jabar su waxee ak sa jabar ba pare nga fase ko toroxal ko

namm sa reetaan namm sa kaw surtout nag madame Guèye li ma gën a namm ci yow madame ma fekk si la sa bureau rek ba fëgg ba nga ne ma nduur entrée ba ma dugg sa sourire rek <laughs> non madame Guèye sa sa reetaan jar na un milliard <laughs> waaw mais yaa ci jàmm maa ngi euh, nag yëg naa lépp xam nga Sénégal dara du fi umpé mais li ma lay wax rek saa su ne euh, defal sa xel ne am nga góor lépp lu la métti woon ci sa àdduna jàppal ne tey jii jeex na takk yow daal say ronkañ. salaamaaleykum. comment tu def. ngi fi tooga. def. kii du moom la xamee woo. sama xulóo la. <laughs> bàyyi waaye la nag. naka mu nag. yow nag léegi dinañ xuloo de. ndax lan yow sama affaire doo ma ko livré. léegi léegi rek yàggatu. topp sa congé bi ba yow dara yi nga ma joxoon yëpp paase na. Hmm. Ah, que da xam ne mënu ma la mere. Hmm. ana euh, mère. xam naa ah, aw ma toogaay damay dem. ah doo xaar ndogu. waaw bàyyi ma ma dem xam nga sama xarit bi Cheikh moom moo may xaar. Ah. dooñu yu ñu war a réglement ak moom <laughs> xam naa dinaa la fa yóbbu sax ñu ndogoo fa maag yow incha allah <laughs> lii nag bariwul bëggoon nga ndogu ci rek. yow daal nga ne nii rek. yow man maa ngi si góor maa la war a. non bàyyil ah, war a defal moo lay fay téere rek. eh tita tin sa yoon ci. waaw kay. lëfër lëfër yi set. kat lii baaxul de. yaay booy na nga def. su bañee yaay madame Guèye ngi nii. waaw waaw sotti ceeg def ci la sax. sa yëngu sax. ku la ci moom di jël waa ci moom daan wër ku daan kaw ngay féete. xaw du ma moroom benn go jargoñ. génn. Eh, xam nga ki ko mën a ki koy jéem bokkul. mën a eh, xam nga man tigga dégg jaww bi laay maafe. <laughs> ay la eh, nag ndog kese la ndog ah, kese la. <laughs> incha merci beaucoup Ndour. daa kontaan naa eh, yaay booy maa ngi ñëw dem. Ah, waaw dem nag mën ngaa toog xaar ndogu. ah saa yi del bàyyi sa veste yi ngay luye dégg nga. àdduna amul solo ñu ah, ah, man gisuma la woon kañ nga fi ñëw. dama jaaroon ci sama xarit nag eh, eh. lay ah waaw Kalaado Boutique damay dégg ñu koy publicité fan yii yëpp. waaw central boo duggee eh, Thiès rek ci marché. avenue Général boo ci woote. Ah. ñu indiqué la. ah Kalaado Boutique ah. yow xam nga li nga def ci biir. sa korité. xam nga li nga def ci biir. pour sa korité. ah yow Fall jërëjëf waay. xam nga yaay sama xarit. jërëjëf waay. déedéet ah. yaa ko yal na la yàlla fay. non lii du dara meer. Youssou Mbaye ko jël kenn doo ko. ah boobu ñoom fu ñu ne nii ñoom. Thiès Thiès. marché ah. central. bu Thiès. damal ngi noonu ci mbuus mi ñu bind gis naa ko. gis naa ko jërëjëf. jërëjëf aywa yaa moom jërëjëf. xam nga gardien yi fi ñëw di dama la dama la xaw a tënk. maa ngi yow ba géej gi feex. <laughs> ah imatari classe la hmm? kii sama xarit la. ah. ça va. E de dama ñëw bu ñu waxtaan. waxtaan man ak yow. eh bien donc ci sama xalaat bu gàtte man ak yow amatuñ dara lu ñu war a wax on n'a plus rien à se dire. am na lu bari lu ñu war a wax. amuñu lu ñu war a wax. xanaa doo yaa ma toroxal barki Demba Ndiaye koñ bi yëpp génn nga yekk ma fi katame wax ma lu la saf wala du yow. aji fàttal loolu. fàtte xaju da nga toog ñu waxtaan. uyu li mu doon proposé affaire takk suuf laa bëgg ñëw ñu waxtaanee ko. dégg nga bu baax. takk suuf bi nga bëgg. Mass jógal. jógal ko aji ñëw ma toog ñu waxtaan laa. xoolal du ko waxaat ah. ñëw toog ñu waxtaan laa. xoolal. samay rabu naar léegi mooy yëngu ma may la riir kër gi ñëpp ñëw koñ bi ñëpp ñëw seetaan jógal ci biti door jógal eh sa xol bi doo ko féexal tu cherches quoi ku la bëgg ku la teral ku la jox sa gëdd je suis prêt à le faire mais j'ai comme l'impression que li may def intéressé wu lan la. monsieur Fall yaa ngi bëgg ëppal nag te man je ne veux pas être insolente c'est pas parce que dama am problème ak sama jëkkër mooy lu ma neex laay def wax jooju jël ko teg ko ci suuf pare naa si nag. dégg nga ma. xam nga man sama vocation du mer loolu dama lay rectifier rek du danga am problème ak sa jëkkër sa jëkkër daf la trahir nga bàyyi. loolu c'est entre man ak moom sa yoon nekku ci liggéey la ñu sekk yamal foofu. mais ton bonheur compte pour moi. lijjantiwuma ko. suba fi laay ndogoo. ku la invité. maa invité sama bopp. non. jeex na. moo ma indi yi tamit gàtt nañu àq ni tuuti de ay nit woon ngay tëgg rek. Ah, li may yaakaar. sama xew waaw. yaa nag bëggoon naa ñu wax ci xew moom. bu ma ndeyalee ndey jàngee bi sóori mi ci mbaaw mari ma den mi ci kàddu gi. li ci cëddeen Alsaan Mbay dar ko dama bëggoon man ay VIP rek nekk sama xew nday soxna mboobu yaay Youssou Ndour waaw Ndour awaale mbergaan yaay dimbali ma maamale ma ko lu fi kenn mësul def waaw xam nga dinañ la ndeyale dinañ la magale waaw ma maamalee la ko ndax moom ñépp a koy ñaanal mhm. yàlla ñor di fanam mhm. ndax daf ñoo jural koo xam ne kii ñépp ay roy ci moom masha allah moom laa lay maamale ah te loolu boo fexee boo ñu toog ci nopp Youssou ah macha allah di nga lalee rafet na ah sa lal rafet na. yaa yow daal loolu bu mu sax jëm kaw nañ ko def daal. loolu mën naa tëdd sa di ko génn. benn benn ko ba ci kanam. neex na tey dara lekk ndax yow rek. maam lekk maam. maam waaleykum salaam maam. maam oui maam nouvelle bu neex laa am. Hmm. ajaratu ne soxna Mbour. sama yaay nee na moom yaay yooyu sundur moom laa ko maamalee ko la xam nga nit ñi dañuy màggalee ka ndeyale. Hmm. ko ko. màgge oui. eh waay ndaw si eh ndaw wii de la wuyoo. mu ne ko wii de la wuyoo. fi gëj a am sa jëkkër yoon yaay. Guèye Ambar. Ambar Guèye Ambar Sarr. yëngu ba kii day sukk li nga xam ne xale yi defatuñu ko. waaw. laay xale dañ koy yar. tamit demoon kii weer biñ toog. yaay suur na. eh lan suur dangaa xam lan la. yow nga lekk benn tàndoor ma génn ak ni nga bëggee lekk. nga am suur na eh suuroo. yow maas bu ma maas ah. xam nga de. merci. Mass doole. dañ lay tibbal. kii lu ko dal yaay Mass day sal dina nekk day day xam naa li muy door a wàcc tax day sonn nag wàcc rek rek day métti. jeex yaay Mass toog na ba jeex. waaw dafa jeex nag. bu jeexee kii la war lekk. Mhm. bàjjen. Mhm. gisoo ma delluwaat sama kër yaay. wax nga ñetti fan dellu fan. loo fay wut. bàjjen man ko damaa jaaxle. lu la jaaxal. ki tax ma ñëw si kër gi maas su ma toogee du lekk su ma ko xoolee sax duma xool faalew ma comme si kenn nekkul ci kër gi. Eh. def naa lu nekk. Hmm, yaay xale yaay xale yow maas bu la bëggee nii la la koy defal. Hmm. maas da laa bëgg maas bët yi may xoole moom la lay xoole te bët yi ngay xoole sa yaay boo koy xoolee ku jigéen danga ko bëgg. deretam nga sax mënu laa bañ. yow yaay dëggal sa bopp rek gëmal sa bopp dëggal sa bopp. te ma wax la leen damaa bett maas di la photo nga dox ginnaaw di jaab. maas daf ne ma woon doxinu kanaaraam bi daf koo ne. nee na ma kii doxinu kanaara la yore. bu ma xoolal yow dara nekkul. jugal ñu dalaa bëgg. man xam naa ne dalaa bëgg maa jot sama doom xam naa ko. mooy la. nii lay def bu la bëggee nii la lay def du yow itam dafa am. ngeen bokk ba pare mu lay bañ. dafa am kersa dafa am kersa. indi reer bi ñu ne bu triste nag dégg nga. wàccal ko dégg nga da nga koy bàyyi tuuti dina ko lekk. boo xaaree ba ñu ñaraw ñu ñaraw ñu. xale bii kuy teg nit gàcce la. yaay maas mooy kaña. kii day teg nit gàcce. kii mooy kaña. waaye duma ci boole wax dina ko lekk bu koy lekk di ko yàbbi ci douche bi sax moo xam ne dina ko maa koy njatt allo. allo. waaw. Waly Diouf. noo def. ça va mais booy vraiment vraiment vraiment man am naa lu ma métti trop trop trop sa waa ji bett na ma trop trop lii ku ma ko waxoon dama ko gëm quoi. lu xew. sa waa ji dama ko jàpp en flagrant délit laa ko jàpp maa ko fekk ci buntu kër gi net muy kaas ay droit bay xuloog ndaw si ci mbedd mi. non il vraiment vraiment vraiment dessus daf ma bett trop trop trop trop. je tenais à te le dire parce que na ma naqari sama xol bi jeex na tàkk. du nit. dafa ñàkk jom. Hmm? léegi xoolal wuyu ma. Hmm. xam nga nu ñuy def. Hmm. nañu bàyyi ba suba man dinaa la rappeler. amul problème incha allah passe une bonne ah <laughs> bettu ma de xam naa yow dina la bett mais man bettu ma. yaay damaa ñëwoon tey pour ñu waxtaan. Hmm? <laughs> yaa naan lay déglu. waxtaan wax taaj wax dajale ñu ngi lay déglu noppay dégg xelay jàpp. yaay est-ce que soxna si mën nañu abal. Eh? soxna si suñ doom bàjjen la man ak maas. femme. déedéet yaay kii ci femme bi la bokk. Maguette may ñu après dinaa la compte rendu. bato dem bato Gosse Maguette day fi Gosse fi de yaa fi nekk. yaay maa ngi jéggalu bu baax. Mhm. waruma woon génn ci kër gi sans yëgal leen ko. depuis boobu nag ku ci nekk mi ngi may woo. naan ma dellul dellul tata tonton jëpp soo leen gisee li tax waxuma leen ko c'est parce que dama bëgg a suturaal maas instant yi nag wax bi dafa jot yaa leen di fàttaliku sama xarit boobu noonu jóge woon Paris Salaamaaleykum Bonsoir. Bonsoir. Ça va Ça va, merci. T'es fatiguée Je suis très fatiguée. T'inquiète pas. Tu vas te reposer après. Rentre, oh, t'es toute belle là. Merci. Tout comme toi. <laughs> Si je me maintiens, tu sais. ba da ngeen am embouteillage yoon bi. waaw sonn naa kii sama xarit la. ndeysaan nu mu tudd. Raïssa. comment t'appelles? Raïssa. Raïssa. Raïssa. Hmm. <laughs> mets-toi à l'aise. tu es chez toi. merci c'est gentil. c'est ma belle-mère. ah ok enchantée. Mmh. très heureuse. merci. Mhm. tu comprends le wolof. oh non. après je vais t'apprendre à parler wolof. je serai très waa ñëw nañ. bonsoir bonsoir. Ah, enchanté hmm. monsieur Mass. c'est mon mari. Hmm. ah monsieur Guèye. ah monsieur Guèye. ok je mmh. bon il a été. mais attends toi tu m'avais pas dit que t'avais un aussi charmant. Mmh. Oui, charmant. Arrête. Oui. il a croqué <laughs> mooy borom forme bu macha allah. Mm-hmm. te mm-hmm. Mm-hmm. dafa amul woon fu muy dal. ma dalal ko fii ci kër gi waaye dafa ma bett. moom sa xale bi. waaw.

am naa si part de responsabilité. dama yaakaaroon ni sama xarit bi changé na ndekete changé wu bi loolu nag xewee ba noppi. Mhm. woo naa ko ñu toog waxtaan. mu promettre ma ni que loolu dootul amati. ah mhm. du ko defati. ma wax ak moom nag samay ñetti dëgg. Mhm. ne ko loolu waxuma la bett sax mais su ma njortatee dara. man ak moom suñu diggante day jeex. waaye dootu ca dellu kay. Hmm. keroog. Hmm. fii laa toog. Hmm. benn waay woo ma. ne ma maas day fréquenter benn jigéen bu tudd aji. Mhm. sama xel ñaaw ma topp ko. waaw yaay lu ñuul bi ma demee ba foofu. Mhm. ma fekk leen ñoom ñaar bettaat leen encore ci kaw lal bi. même chose la. a en mode sous-vêtement. ay yow mi yaa bari sutura. nga def ko naan. yaay. Hmm? mënatuma woon supporter ñëw fii. mënuma woon dem ci sama mbokk yi. dama ko bëggoon suturaal donc. lii divorce xajoon na di yow jàmbaar nga. Eh ay yaay sëykat kii mooy sëykat. li nga wax yëpp dégg naa ko. Mm. mere woon naa la nag ci erreur. mais lu tax ma mere la danga ne maay sa yaay ma ne yaay sama doom juruma maas yow laa jur kon lu la naqadi sa néegu sëy rekk man nga war a waxal mm. balaa nga doon génn fii. boo ma ko waxoon danaa ko faj te ñaar ak ñett du ko yëg mm. ndax am na ñoo xam ne bu leen daloon balaa ñoo jigéen seen kër gi àdduna dinañ ñëw ko àtte leen teg na ma gàcce nag hmm. nag yaa ngi liggéeyal sa doom mm-hmm. ndax surtout si nga sànge yow continuer ci voie bi mm-hmm. bu doon sama sago doo ñibbi sax dégg naa bu baax li ngeen wax waaye su ma sañoon ngeen may mu tuuti temps. na ko jox neexul neexul jëlal jëlal jëlal ma defal nga ah, góor ñi dañu taxaw di góolu booy génn ñu ngi lay capté. te loolu laay bañ. amour bi na des. Hmm. dinaa la bàyyi nga dem. mais bu mu yàgg ah, ndax sa doom. Ah, ñu ngi lay xaar nag bu mu yàgg nga. sa kër gi moom. moo xam day ne mu ngay nelaw baax na. doo ko gunga. waaye kii mënu ma koo gunge waaye dafa rafet ni muy jooyee. oh man mooy